بسم الله الرحمن الرحيم بارك بسرين منتخب بسير خليفة بي ما قل قمودين دي قل دولن نلوم في وخل بابام تدا كو دي قل مريدي كوي قمتي ما قل قمودين دي قل أيوة دولن نلوم في وخل بابام ko lu fi waxal boppam te daa ko digal murid yi waaj leen de waajatina man mii de jeekatina di waajal sunu bis bi bis bi de moo di magal bi maami Cheikh Mourtada Falilou ndeysaan sunu magal gi ñëwati na kon mi yokkati na murid yi bëggati na ci weeru magal gi ndeysaan waaw waaw boppam te daa ko digal murid yi koy Ahmadu Bamba daana wax naan ñu ci jàng alxuraan Ahmadu Bamba daana wax naan koy gëmatee Ahmadu Bamba daana wax wax leen Serigne Saliou nee na borom jannatul maxwa wax leen Serigne Saliou nee na borom jannatul maxwa maxwa Serigne Saliou nee na borom jannatul maxwa maxwa ku jaraw daraw ba faw ci barke magal gi ku jaraw daraw ba faw sunu màggal gi ku ca daraw ba faw sunu màggal gi ku ca raw ba faw ci barke màggal barke màggal loolu moo tax Sénégal lu fi waay mën a wax Cheikh Béthio Ramlee Sénégal lu fi waay mën a wax Cheikh Béthio ak bëgg moom de ci jëf la rawee gaañi ci barke màggal gi Sénégal lu fi waay mën a wax ak bëgg Serigne Saliou Mbacké moom de ci jëf la rawee gaañi weeru màggal wax leen weeru safar gi bu teeroo murid yëpp dañuy kontaan bu teeroo. yëpp dañuy kontaan. waru safar gi di togg ay ñam di joxe ngir waajale ko màggal gi. weru safar Bamba woote ay Sëriñ Saaliw woote woote na bay Serigne Sali woote na Cheikh Modou Bamba woote na bay Serigne la oh. ñu dem Touba di murit man waajati naa ay ca leen ñu dem Touba di teeru màggal gi ana soppe yi Seex Ibra Faal ay ca leen ñu dem Touba di teeru màggal gi ana soppe yi Seex Ibra Faal ay ca leen ñu dem Touba teeru màggal gi ana soppe yi sëñ Fallilu ay ca leen ñu dem Touba teeru màggal gi ana soppe yi sëñ Fallilu ay ca leen ñu dem Touba teeru màggal gi ku di murit sa loxo ya ca kaw ay ca leen ñu dem Touba teeru màggal gi burit sa loxo ya ca kaw ay te leen ñu dem Touba kër Magal ge dem Touba teeru Magal ge